waaye nag yaakaar naa ne gor suñu ko dénkee jox ko alalu askan mu yor ko juróomi at wóolute am na waaye bu ñu tolloo fii day laaj balaa ngeen di laaj doo leen si defoon ñu woo leen yéen ñëpp ne leen lii la ñu def si li ngeen di jox tey am na lu ñu leen si wan waaye yi ci des bari na lool li ñu def suñu toogoon jël journée bi yëpp di ko wax yaakaar naa lu tax mu yegg waaye dañu ci tànn yenn rek. yaakaar naa ne su ma tàmbalee si suñu maire bi bii état bi ba ñu fee ñëw dañ ko lakkoon te ki ko lakkoon tey mu ngi naan day am ku mu àndal pour ñu jël maire bi dañu ko taal saboté ko saccagé ko ba presque amatuñu woon état civil ñu jël état civil mbaaw boole ko ci liste rouge loolu mooy ambassade yi nekk ci Sénégal gi yëpp saa bu fa këyit ñëwee jege mbaaw dañu naan. dem leen on le remet en cause ndax xamuñu bu baax la wala bu baaxul loolu mooy dañ ko defoon ci liste rouge waaye léegi ci kàddu yi président de tribunal de Pikine état civil bu mbaaw dafa bokk ci état civil référence du département bon tey am na yu bari électricien en bâtiment seen formation li ñu war a xëcc ci mu ñëw ci dëkk xëcc nañ ko mu ñëw waaye nag ñiy teewoon suñu ndigg di ba ñu avancé bu ñu bàyyi woon tam dox bi dina gën a gaaw waaye daal jàppaleen ñu fànq leen pousse leen ba nele su ko defee dox bi gën gaaw lu ñu bëgg ñu am ko yaakaar naa li fi xew tey su ngoon bu ñu ko gisee am na candidat yoo xamante ni c'est si c'est pas trop tard dina dem retiré jëwaat seen candidature gars yi joxaat leen seen caution ñu toog xam ne mbaaw tànn na mbaaw wax na mbaaw wane na boppam ndax kilifa yu tol nii caaxaan yëggu trois heures ñu jógee seen kër ba waxtu wii ñu toog si mbett ay borom kër bàyyi seen njaboot di ay jigéen caaxaan yëkku leen ñu bàyyi seen kër ba heure bii nekk fi c'est parce que lii ñu gis ak li ñu leen defal daf leen doy sëp moo tax lii mën a am bon nag loolu yëpp su amee waa mu may fàttali parce que dafa am ñoo xam ne peut-être politiciens ne bu ñuy def bés dañuy joxe xaalis jënd ay mbuba joxe ay sandwich joxe leneen nax leneen nax leneen jigéen ñi brave question ku fi gis ngeen nuraale ñoom ñoo génn seen xaalis defar ko seen bopp jënd ko sol ko indi ko xale yu góor yi jeunes yi ñu si bari ñoo cotisé def ay banderole jënd seen ay jeu kii euh, feu artificiel yi ñu doon taal ku nekk préparé bésam ñëw ndax gëm na li muy def defalu ko kenn boppam la koy defal kon ñun daal dañu leen di sant. Ah, am na loo xamante ni soo koy def di triche du yàgg mais léegi mu mat juróom-ñetti at ñu nekk ci mairie bi waaye ale na mu tàmbale woon noonu la yëgsee am na ñoo xam ne dañu tàmbale cent à l'heure di wàññi di wàññi ba mu njëg ñu nekk deux à l'heure un à l'heure ñu des jàdd koñ li gën naan tel dañu tel bon yaakaar naa ne dinaa ko sant waaye dinaa sant koo xam ne tam li ma koy sant du bari ak li ma koy remercier muy Njawar Saw mii Baay Fall la jàmbaar la nangu na te dara du ko tax a dellu gannaaw ñu ñu àndal ñëpp ay jàmbaar lañu waaye dañuy wax ne fi ñu ko teg nii foofu la am na koo xam ne du nelaw tey de du nelaw de. wara ne woon gañe na ba pare mu a gaa maire yi bés bi lay xaar bésu campagne lay du nelaw de côté da fa gore dafa wax parce que nit da ngay franc sincère reconnaître méritu nit ñi du wàcc si sa dara daf ne man xam naa ne su ma demee du ma gañ waaye su ma àndee kii yàlla mën naa def damay gañe mu wax ko ñëpp dégg ko ñi mu àndal ñiy mere ko ñuy kontaan mu taxawaat fii wax ku ngeen dégg tey li ngeen ko wan fii tey su ngoon challenge bi mu ñu joxoon défi bi mu ñu lancé yaakaar naa koto su demee toog ak ña mu àndaloon ne leen ne newoon naa ne ñii suñu ànd ak ñoom dañuy gañee yaakaar naa tey di nga sigg xool leen ndax ay gor nag ñu ko séqal dañu nangu benn yoon nga gën ñoo gore dafa am ñu naan mbir mi dafa am ay deal ay deal politique gis nga sooy politique te xamoo politique jàngoo politique lii sama waa jàngoon màgg dawal màgg dawal baaxul da ngay jàng dawal fi nga ko war a jànge xam ko am permis soro dawal waaye jëkk rek dugg sa làng politique yi nit ñi di def des tractations politiques nga ñëw taxaw naan ay deal am ay deal bépp parti sérieux wala coalition wala mouvement sérieux su jëmee ci élection dina xool kan la war a àndal kan lay waxtaanal ak nan la ñuy ànde waa ñu nekk di waxtaan loolu jël na waaye tëb fu la ne nag koto da kay jiital xam nga ne koto du mosu tabaski na am ñoo àndandoo mu naan daa am dil dil ñoom ñoo xam dil ñoom ñuy def yeneen yi ñun tractation politique lañ toll woon ku nekk xamal nga fa ngay jaar Ousseynou Pouye mooy wax ne utu yoonu xamu yoon ko gën dañ doon tël tili rek waaye ñi war a ànd xamante nañu xam nañ seen bopp kon vraiment kontaan nañu ñun nag grande coalition wàllu Sénégal la ñu àndal mooy suñu bel bulletin zone bu am mboq mi naka ñëpp xàmmee fii may candidat ville bi docteur Cheikh Dieng moom mooy maire Djeddah Thiaroye Kaw mooy candidat bon fa la ñu sànnilee carte benn carte bi xamle na moo ko moom am na keneen ko am fi ay nit di jaar si suuf pour na samay nit nañ nga sànnil carte suñu waree waa PDS goreew nañ joxaat seen carte docteur Cheikh Dieng parce que ñoo ñëw fii dooleel ñu ba tey ñu mën a ànd ci ànd bu rafet bii bon nag coalition bi yàlla na ci yàlla def ndam dinaa nag nuyu dinaa nag nuyu suma maam suma xarit suma conseil numéro un muy Mamadou Seck président assemblée naata mbaaw le grand ministre umpalentewuñu maa ngi jël xalaatam mu may teg si yoon mu ngi jooyanti mu ngi wax li mu war a def mu ngi koy def junj nag doy na borom xel Abdou Seck maa ngi koy sant di ko gërëm vraiment taxawaayam rafet na nëbbuwul làqwul waaye la mu waroon def yëpp mu koy def